mbokki jakkanu jàkkaarloo ji ñu seetaan élection fitna jaangi wey fi ci Touba kenn ku ne xamna ni président de la république euh, Macky Sall ñew na fi mbokk yu bari bari ko waye tam am ñu bari tam ño xamanteni wax nañ non ginaaw bi nga xamanteni ni tay nak nag président war def ay visite yo xamne dafa jëm lenn ci dëkk bi ak fenn ci pénc yi nga xamone ci dëkk bi ginaaw bi nga xamanteni ni ndaw ñi and ak Seck Sadaga exi nañ fi ci Touba Daru Khoudoss amna ndaw ño xamanteni ni nañ ni non du fi amé gis nañ jàmbante yu tar jàppante yu takku jàppante yu fasantikoo yi nga xamante ni nemeeku nañ ko ci diggante ndaw ñi nga xam ni ñoo ànd ak Abdoulaye Seck Sadaga ak ñenn ci askan wi nga xamante ni ñoo dëkk ci Touba mu mel ni nag loolu di jafe-jafe yoo xamante ni saa su nekk dañ koy nemmeeku ci élection yi yoo xamante ni dana dëgmal waaye nag lii nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci Touba di nga xamante ni lu yéeme la lu doy waar loolu loo xamante ni mën nañoo jàpp ni histoire mës koo bind wala su ko histoire mësee bind itam lim ko bind bariwul fii ñu nekk ci bërëb bii di Daaru Xuddoos war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax war a bàyyi xel itam la Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké waxoon ni lépp lu ñuy def muy activité politique nañ koy yóbbu ci li nga xamante ni mooy li génn ci li nga xamante ni mooy oromu Touba bi waaye fii ci xolu Touba di Daaru Xuddoos lii ngeen di gis ni image yi fii la amee kon nag mbokk yi du ñu def lu may nag daal leen di bàyyi ngeen seetaan image yi nga xamante ni moo fi am ak ñëw président de la république bi nga xamante ni bii ndaw ñi ànd ak Abdoulaye Seck Sadaga ñëw nañu baag si fii te bu fekkee defal na loi boo xam ne nii arrangé wuñu dañuy taxaw dindi ko ba mu set wicc te lii nekku suñu arrangement dañuy xool loo xam ne nii ay wàllum góor jigéen ak yu ñàkk fayda yoo xam ne nii ñun doxuñu ci yooyu te ñoom amuñu droit laal ñu lan mooy ñun ñu taxaw fii naan non ñoom ñuy ñu ñuy attaqué di ñu dóor ay xeer ak lool ñoom ñi ànd ak laat seek Sadaga ñu ngi nii taxaw ñun ñun ñun ñun ay citoyen lan dañoo am droit ci dëkk bi ci Sénégal nous sommes des citoyens ñëpp te dañuy sëñ ku fa sëñ Touba lañ àndal yëpp laa wadd ma sëñ Touba la àndaloon faamu fiy gëmoon na Sëñ gëm Sëñ Murtadaa gëm Sëñ Saaliw ñëpp la gëmoon way way suma suma sagan nag non non yéen di wax non <laughs> Sall doyal nañ së dañoo doyal rek li mu waxoon def fi daal ba noppi fonk waa Touba respecté wu leen dañoo doyal doyal nañ së ñu doyal suul dañoo suul Macky Sall Laye Siteu lan d'accord tey d'accord ko ëllëg d'accord ko ginnaaw ëllëg te duñ si mos a ànd ak moom ndax li fi wax sartu l'islam dara tegu si yoon. ñëpp noo ñu wax Touba gépp noo ñu wax waaw wasalaam. Issa ñun suñ Touba lañ yaakaar tey moom la gëm tey moom lañ am tey moom lañ moom la ñu tiitaroo moo tax ñu taxaw daan ñun noonu la ñu woote noonu li mu bëgg ñun ñun ànd ñu ji. ku nekk nekk sa bëgg la ñun noonu la ñu gis te ne noonu la ñu wootee léegi ñu bëgg wi tamit woote woote ni jàmm wéy léegi. dèjà yéen ñi ngeen nekk ci péncam Darou Khoudoss mi ñii di yuuxu wii ñii di yuuxu noo xeex bi takarnaase ndax loolu jekk jekk na jaadu na ci dëkk bi tey bii di Touba. jékkut déedéet ñoom kay isa ñoom dañoo war a woote li ñu woote ñu woote woote li ñu woote waaye amuñu droit taf fii li ñoom ñi bëgg ñi ñi teg loolu amuñu droit te loolu ñun tamit duñ ko nang léegi ñoom son son nañu seen tiset nañu woote non ñun ñu woote wii yéen kan moo leen yabal ñun kenn yabaluñ Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa la ñu àndal kenn yebaluñ ñoo yebal suñ bopp woote yor kër nag. ba dafa nii. ba léegi ba léegi